ngeen jëf door ci observateur mi xëy dikk ak ñun ak seen nas ndaw mi ngi nii mi ngi wuyoo ci turu euh, Aïssata Arona Ndiaye moom soxna si ngeen di gis li mu wax waa observateur moo di muy Macky Sall di rakk ja Alioune sàll bokk na ci ñi nga xamante ne ji moom moo leen yoroon ca diwaanu Kaolack waaye nag li ko metti mooy nee na Alioune Sall ak euh, Macky Sall yëpp dañu ko abandonné mi ngi dem sax bay xamal observateur ne xanaa kon tey su ma deewee boog dana ñëw ci sama dëcc nan la demee nan la ñaar ñooñee euh, duggee ci ay loxoom lépp maire bi nettali leen ko dem sax ba leen di xamal ne Macky Sall tey président ba muy nekk xale batañ se la bëggoon dem na sax ba di ko kalaameeg doomam jigéen naan ko yaay Aysata euh, kii di Penda toggatul lii di batañ leneen loolu it wax na ko mooy nee na Macky Sall dafa yàgg ci sérieux gars yi laaj ko ndax daan na ñëw di la ñaan sa xaalis ak yooyu pour dem baali mu ne leen déedéet doon ma ko gis sax ak jigéen baa boog du ko indi ci kër gi nee na wuyu bi nag moo doonoon Alioune Sall Alioune moom wuyu dëgg la donte bu fekkente ne eh, lan moo yóbbu woon Macky Sall ak Alioune Sall ca fi nga xamante ne moo di Kaolack nettali na ko observateur kañ la leen gëj a gis Mariam Faye mi nga xamante ne ji ñoo ngi wax ak mbaaxam ci réew mi ci ne ku mës a jàppale président seet bu paree dem la ko gëj a gis bi borom këram faatoo ak leneen ak leneen loo xam ne en page 6 ba 7 soxna si di Aïssata Arona Ndiaye moom moo ko xëy may waa observateur du dara loo xamante ji kon euh, bàyyi na ko ñun dañu koy bàyyi te dem ci beneen yéenekaay euh, wax lu aju ci layob Karim Wade bi ak ni nga xamante ji foofee la toll moom Karim Wade euh, enquête gis ne ñoo ngi ci virage bu mujj bi jamono ji muy avocat défense beeg ñi nga xamante ne li tax Karim Wade bëggatut a dem lépp kon dem nañu ca ba jeex avocat état boo bekk euh, seen communiqué ba ak li nga xam ne wax na ko Sud Quotidien nañu en tout cas Nous ngay seet nu ñu défendre Henri Grégoire Diop ndax avocat Karim Wade yi dañu ne Karim nangu tuta dem tribunal ndax Henri Grégoire Diop ak ni muy doxalee comportement am doyatul Karim Wade gars yi nag nañ dara amu ci amu ci lan loo xamante ne ji Henri Grégoire Diop def Karim Wade ba war tax kon mu ci audience bi premier ministre du Sénégal Mohamed Boun Abdallah Dionne teewoon na eh, ci dox bi nga xamante ne ji gi di plateforme africaine droit de l'homme développement euh, des peuples doon nañu ko amal ngir daal di ñaawlu Charlie Hebdo ni ñu fi yéenekaay bi nañu mi ngi ni premier ministre bu Sénégal ma nga ca woon àndoon na ak Mahmoud Saleh àndoon na ak Seydou Gueye àndoon na ak Mor Ngom àndoon na ak Augustin Tine yi la kàddu moo ko fay que nee na li eh, Charlie Hebdo def def ko vexé loolee mi ngi ko wax kon eh, fenn en tout cas bañoon koo defa gën ndax daal mm, pari bi ñu doon wut mobilisation bi ñu doon wut amee wuñ ko noonu ña fa teew bari wuñu a eh, kaay bi xëy ci ak titre bu xaw a doy waar moom le quotidien di leur kan kan bi nag dañ ciy dégg dokk yi nga xamante ne moom la gars yi di yor muy kan yooyu ñuy doxee wala nga dégg ci coupe d' afrique des en tout cas ku ci nekk ñi ànd nañ fële ñii dem ànd fee loolee le quotidien bëgg a wax man ma dem ci kan boobee mu di coupe d' afrique des ak populaire mi ñu xëy xamal ne sénégal algérie loolee suba la waaye Alain Giresse nag kilifa yemee footballu réew mi am na ñoo xam ne wax nañoo ak moom ndax li mu góobi rek eh, gar ko wa sport nañu gaynde yi jamono ji kon ñongo ci diwanu Mongomo di waajal sen digg ka fenn ak Algérie mom lañu gis jamono ji Algérie lañuy ñuy suba lañu football ak mom stade mom xëy di laaj Alain ak ni mu contre Afrique du Sud ba duñu ko defat. yan gaynde la Alain di football lo suñu digg ak Algérie ma dem ci observateur Pap xool fa menn mo moo xamante ji kañ lay bëreeti ak fu muy bëreeti mi ngi nii Lac de guerre 2 bu écurie observateur xey ñu xamal ne Euh, dañu ko bett ci otoom ak benn xale bu jigéen ñu nekk fa euh, di defante fi saay-saay noonu lañ ko mën a waxee observateur moo wax loole laas nañu moom Lac de Guiers 2 attentat à la pudeur moom la ñu ko euh, toppe moom la ñu ko jàppe woon police bu géej waaye ñoom ñoo ko jàpp populaire moom da caa dem ba jeex joxe ci détail ci xët bu njëkk mi dem na ca ba sori moom populaire ak Lac de Guiers ak la ñu ko jàppe yéen a kaay bi nañu jàpp leen ña ko jàppee ci fi nga xamante ne ji moo di Cité Lobate Fall ca technopole ba benn ruq bu xaw a lëndëm am ndox la et otom n'est fak benn xale bu jigen bu 23 ans Diallo la sante mom xale bu jigen bi di liggéey ci ben boîte de nuit ay 23 heures n'est bañuy ba ñi ngi fekk lak de miguel 2 mi ngi sol ben short ak ben capuchon n'est ci kaw xale bu jigen bi ba xale bu jigen ci kaw en tout cas dal ñaga doon warante le yene kay bi wax mom lak de Guiers 2 de journal bi nañu dañu ko japp ginnaw bi ci luñu ko muju baye grand place mom nekk fa sax di xol lu xew ak lu xewul la ci tek maudit modi atteinte aux bonnes mœurs Lac de Guiers dañu ko bett muy def yëfu saay saay Pape jërëjëf Mohamed